li nga xam ne ni moo fi xew mooy élection locale yi bu mu paree président Macky Sall ak gouvernement xam nañ ne Yewwi Askan Wi gagné na élection yi gagné na ko ndax boo xoolee élection yi ci 46 départements yi nga xam ne ni moom la Sénégal am ci 30 départements la bokk ci jogante bi te loolu li mu wane mooy Yewwi Askan Wi gagné na dëkk yu mag yëpp parce que ku gagné dakaar gagné Guédiawaye gagné Thiès gagné Rufisque maanaam benn dëkk bu ñuy tudde ville lañu ñu te bokkuñu fa mooy pikin te buñ fa bokkoon it dañ koy gagné kon nag mën na wax ne yeewi askan wi jël na réew mi sénégalais yi jox nañ bopp yeewi askan wi sénégalais yi wóolu nañu yeewi askan wi sénégalais yi yaakaar nañu yeewi askan wi parce que sénégalais yi dañoo namm leen yeewi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 occasion pour mu éliminer liste tax dama yaakaar nag ne xelam nekkul ne mën na xalaat ne ëllëg mën na éliminer list yeewi askan wi loolu moom xelam nekku ci yeewi askan wi dina yeewi Sénégal yeewi ko moom jël Sénégal teg ko ci anam bi nga xam ne nii moom la Sénégal yi bëgg te ñu wan ko ci campagne bi passé mooy jox ñu bopp jox ñu mbagg jox ñu bët jox ñu xol pour que ñu ànd tabaxaat Sénégal liggéey ko ba Sénégal jëm kanam maa ngi leen